amaan mbégte ak kontante mbokki internet yi sbt média point com ñëw seen émission seeti mbër tey ñu dalal xale boo xam si ni dafa bokk si làmb nekk champion làmb bàyyi ko xel di mbëru amateur di yaakaar ci gox bi nga xam ne fi la dëkk euh, muy Mbaye Khada SBT seen émission seeti mbër tey moom la dalal fa seen siq moom waxtaan ci digganteem ki nga xam si moom moo di Seck nga xam ne moom it mbër la moo xam si ni champion la donte li mu def si ay combat bëriwut waaye li tax champion bii nangu koo jël lool lépp ci biir émission bi ci lay leer euh, SBT ñu ngi lay nuyu Mbaye Khada yaay bëgg ziar bu wér war na lañ la di la nuyu sa turo sa sant yaay di rafetlu tey déplacement bi nga def pour ñëw fii seet suñu di bëggee tamit waa salle bi di bëggee waa jàmm gën Sika Mbao Cessa lépp di bëggee ñi fi nekk ñi sama ginnaaw ay ñoom gay yaay ay ñoom ngàcc ay waaw bu ma limee jum Fallou Niang xoore ak si ginnaaw ñëpp bu ma limee damay jum maa ngi bëgg ñëpp di sant yàlla bu baax di julli si yeneen bi avant tout seen émission seeti mbër abonné leen ngeen bës seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT euh, mi ngi koy dugal ngeen mën si ànd ñun mais tey gis ngeen ki nga xam ne moom lañ gis nii muy mbay euh, ci salle de musculation ko fekk te mu mel ne que bi nga jógee voyage mbay yàggul ba pare nga ñëwaat la fekk entraînement noppalu waaw tey xëy na lii mooy sunu liggéey quoi kon ni ngay xëy yor sa bi di xool loo war a mën a liggéey ñun chaque jour bu ñu xëyee dañoo war a mën a nekk si entraînement ndax mooy sunu métier quoi waaw combat bi ak seegut amagul dara amagul dara ba pare entraînement yi métti nga yaakaar ne mënoo woon a maintien tuuti rek di maintien nii rek. waaw tey jii xëy na jàpp naa lu métti fii rek après day yomb fële te ñun bu ñu sañoon chaque jour saa bu ñu ñëwee day métti fii puis laaj ñu demee fee mu yomb te day yomb bu soobee yàlla. dañuy ñëw sa sa diggante ki nga xam ne moom di Seck Ndanane ñëw si euh, kan mooy Mbaye Khada maanaam ci ci mbapat fan ak la moo ko boole ak làmb tey si lu gàtt ñi nga xam ne ñu ngi lay miinuñu la tey boo doon wax Mbaye Khada mooy kan ak la moo ko boole ak làmb la lay doon waaw Mbaye xanaa benn xale la rek dëkk gisaaw dëkk mais gox bi laa dëkk ndax dëkkatuma gisaaw dëkk se caamu gën si am mbaaw tëlimaam jaara xamula mbeddu mag guy ga sam-sam xam yaakaar farba yaay mbeddu mag fépp man yaakaar naa fépp laa dëkkeen saa yi ndax bu ma jógee drapeau yëpp laay boole yóbbu kon jàpp naa ne fépp laa dëkk mbay xanaa kon na nga ko benn xale la benn jeune bu nekkoon fii di mbapat ak ay moromam yàlla def ba benn moment boo xam ne tey ñu demoon ne ba bàyyi làmb mais suñu benn grand bu ñu naan wëcc professeur kooku mën gën a poussé waat ñu nekkaat ci làmb ba ni ñuy amee licence pour bëre ji waaw. su ma la déggee mooy Mbaye Khada bokk na si xale yi nga xam ne si ñëw euh, li ñuy def li nga xam ne moom la ñuy wax mbapat tey si mbapat ñoo xam ne laale ngaa ñoom te tey ñu bokk si làmb làmb xam leen nga nga daan leen wala ñu daan la ci mbapat. waaw man moom mbapat damaa ràññee mbapat ndax damay dégg mbëri naan. daan naa kii daan naa kii wala am naa drapeau wala am naa drapeau boo leen laajee du ñu xam sax kuñ daanaka ak seen drapeau mais man moom mbapat billaahi bëri naa ay prix de 40 combat ak lu tegal kii tëgg na sama ñaari combat mbapat musuma daanu si mbapat ñi ma jàpp ñëpp dama leen daan fu nekk bëri naa fa barke Serigne Saliou. ay combat noonu prix de 40. billaahi wallaahi ëpp na sax 40 dama am mbapat jaamu gën man avant mooy bëre arène sama tur daaw na si arène avant dem arène sama tur dem na arène. Eh, ay drapeau Omaro yëpp jël naa ko Mbapat Mbapat kenn mosu see jël drapeau Omaro maa ko mos jël si drapeau Mbapat. sama drapeau bu nekk indi naa ko gisaaw deux te nekkul loo xam ne tey jii dañ koy ndamoo wala dara non non ñun suñu ndam si kanam la mais instant yi lépp lu ñu def rek dañoo jàpp ne xam nga lu yemamaay la nii biir laax yi mais li si kanam. plus de 40 combats Mbapat nga daan ñëpp nga ne yow defagoo dara. defaguma dara si Mbapat si si arène barki Serigne billaay wallaay amaguma sax combat bu ma nee si arène bi bëreeguma fi dara defaguma fi dara chaque jour ma koy wax ñu may toogal naan ma neexaguma mbër cinq combat taxul ma neex mbër ñi ma bëgg a bëreel bu ma bëree ñoom ba daan leen si laay xam ne jàmbaar la te barki Serigne Touba dama leen di fekk dama leen di duma dama leen di daan soobee Serigne Touba ay baax ñu des si ñu des si li nga xam ne moom mooy bëri simple ba léegi mbapat bi tey léegi li ma bëgg rek mooy nga ne ma ñaar wala ñoo xam ne laala ngeen mbapat te ñu bokk ci làmb tey làmb xam leen waaw ku si mel ni nëpp nëpp maa moom bari nañ waaw ndax ñun xëy na suñu làmb mbapat ñu si bëri ñun nag ñoom ñoo dogoon yaa ñu nag ñoom ñoo bokk écurie ñu bëri arène di daan yaa daan naa ñu bëri ñoo xam ne maa ñoom dañoo bokk ñoo xam ne tamit maa ñoom ñoo bokk koñ wala tamit dañuy sekk jàmm dañoo toogaat di waxtaan xam nga la kon mën nañu loolu weesu na quoi mais li suñu kanam mooy lu ñu jëmmal ak loo xam ne tey jii mu ñoo loolu lañ bëgg a jot ndax dañoo nekkal suñu morom ci làmb ji du doole du fit du seng-seng du mbooloo du dara yaa may dégg kon lépp lu ñuy jaay ci làmb ñun mën nañ koo jënd ndax càmm ga leen dëkk Guessaw 2 guy ga ragaluñu dara billaay wallaay lu ñu moom ci affaire dañ koy ñëw jël parce que Serigne Touba billaay dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax moom muy Mbaye Khada def plus de 40 combats mbapat nommé yoo xam si ni dégg ko nee na musul laal suuf si mbapat kii ñu tooga nii ci ndeyjooram nee na sax moom promoteur jot na koo tëggal ñaari combat waaw mi ngi noonu kon euh, ngeen xam ne kon ki ñu dalal tey euh, fu mu ci làmb war na faa mën a toll ndax champion la ba pare xale la ba pare mbooloo topp si ginnaam nag ñu génn mbapat bi comme comme nga xam ne dangaa laale woon ñoom mbapat ñii yéen a bokk koñ ñi yéen a bokk écrit léegi ñii yéen a ànd ak yu jàpp naa ne kon premier combat arène nit ñi rek ñu ñu koy waajee rek dem bëre kon noonu la rek. kan man maag benn booy daal maag benn booy la woon. waaw kooku xëy na weesu na quoi moo tax mënu ma siy débat ndax nit ki xëy na lu weesu rek weesu na boo siy débat day mel ne dara métti wala dara xëy na métti nañu mais neex loo xam dañ koy wax dañ koy job liggéey ko ak gëm-gëm ak ànd ak suñuy mbokk yaay mu wees. parce que mooy mbay xaraa dafa bokk si mbër yi nga xam ne dañoo ibbeek defet waaw sama premier combat damaa dem ñàkk ñëw teg la waat trois victoire. bi nga ñëwee bi nga ñëwee sa premier combat nga xam ne da nga daan taamu léewtoo ak tey nga ñëw ci mbàccum gerte mi dóor yi. combat noor maa bëgg na mbay nga ñëwaat ci combat bi parce que li maanaam maa damaa bëgg xam lan moo tax combat bi nga ñàkk ko da ngaa ñëw topp xeex wala da ngaa ñëw da ngaa ñëw xeeb sa adversaire. non man xeexuma man ba léegi làmb xeexaguma si. xëy na dinaa coxaas mais xeexaguma si ndax loolu moo ma daan sama premier combat jàpp mbapat la quoi ku ma jàpp ne rek maa la war a mën te tamit ki ma bëree mbapat moom ba muy bëree man sax dañ doon ko sóoraale si man lu bëri ndax ki ko indi tey kii moo tëggoon suñu combat kooku ko indi woon ma daan ko billaahi ma jàngal ko bëri daan ko jël bu yomb kooku ko indi di ko gëmloo ne ko buy jàppante moom fu la jàpp dalay daan moom bu may daan sax gëmee ko billaay. war na laa ma daan ak mbay non non kooku sa non Ama Malick champion la. Serigne Touba xam na ne ba may daan gémmewu ko boo ko laajee victoire yu la gën a neex daan maa ngi mbay xadaa ndax lam doon ci dégg la ak gëm-gëm gi barki alxuraan yaa mu ñëw yàlla dogal mu dóor ma man ma kaaw mais neexu loom la ma jàpp daan ma ndax mënu daan mais jàll na waa dañ koy ñaanal jàmm rek mu nee si yoonam mu nee suñu yoon booba léegi mi si yoonam ñu ngi suñu yoon yaa yàqul dara. premier combat la def ñëw yàlla def mu ñàkk léegi sa deuxième combat coow li bëri ba pare mafia bi coow li gën a bëri ah mbër ki ko jox ah waruñ ko war ko woon a jël dañoo war na xool fa gën a nooy léegi mbay jógee fa rek commencé di tànn léegi nag mbay nag daa jógee rek commencé tànn ay nooy neex yi jox non man ba ma jëlee sama premier combat ba yàlla dogal li mu dogal deuxième combat bi moo gënoon metti premier combat bi ndax dem nañ ba foofu ñu woon ñu suñu adversaire du moroomu ku ma daan koo xam ne man ma daan ki may sama ku ma dëjee sa bëri sama deuxième combat Baye Fall du moroomu mais ni ku nekk da am gëm-gëm sa bopp quoi. ci biir ci biir làmb ji ci nga gis adversaire non non avant làmb ji lañu daje CNG ñu dem ñu gisee ma ak moom gars yi ma àndaloon xaw ruux man leen noonu tey ji lii nii dafa war a mën a dama war a mën a won leneen tey jii lu ne si man si kii laa ko war a mën a wore te dama koy wone bu soobee yàlla dama ko gëm dama doon toog sa gars yi ma leen barke Serigne Touba dama koy daan ndax si li ma jógee ma dem yàlla may ma ndam waaw bëre ñu xeex jàppante bëre ma daan ko loolu kese. li ngay xeex boo ëpp li ngay bëri de yow saa sa loxo yi nga ko wóol indi nga yónnee gauche yónnee droite. non man li may bëri man ma sax billaahi li may bëri moo li may lii xeex yàlla may la ci ndam troisième combat. waaw maa soxu ma ndam. moom. waaw kon ni ma bëreeg nit ñi rek jàpp rek daan <laughs> man loolu laa gëm waa jàpp rek yow fële gaan si ginnaaw. combat. sama quatrième combat maa kii la benn mbër bu dëgg fii si ginnaaw waaw. boobu dëgg fii si ginaaw rek. ma si yoon sax duñ si commentaire nañ jàll si boobu rek demaat si beneen yaa ko daan. waaw kooku moo ma daan. léegi yow Mbaye waxuma loolu yow nga yëfee internet yi yi nga xam ne da nga koo daan nga nangu ko wax yi ñu la daan nga nangu ko wax naa fi expliqué naa fi xamul wax mais combat bu dafa neex loo xam damaa métti. wër na Serigne Touba moo tax du si débat ndax. xëy na ay dëkkandoo lañ yaa may dégg sorewuñ ko waa maak moom mais li ci laxus dafa bari nekkul loo xam ne ñuy toog si média bi nii di ko wax ñu ñuy xamal waaw moo tax weesu nañ ci loolu quoi pilaax yi euh, nga jógee ci maanaam nga def fi nii def nga quatre combats nga am deux victoires am deux défaites léegi sa cinquième komba sama cinquième combat maag alliance Balla Pikine la waaw sunu borom may ma si ndam. nga def nga def trois victoires deux défaites. léegi léegi ñu ñëw si sa diggante ki nga xam si ni moom moo di moom moo di Seck Ndaanaan nga def cinq combats Seck Ndaanaan def deux combats benn victoire benn defet la moo tax nga nangoo bëri Seck Ndaanaan ba pare balaa ñu ñëw ci biir combat bi ndax ak yu mel moo tax nga nga am choix jël Seck Ndaanaan koo xam si ni deux combats def yow nga def cinq combats trois victoires deux défaites moom mu def benn deux combats benn victoire benn défaite la moo tax nga maam sa diggante ki nga nangu ko jël. waaw xam nga ñun moom ay xale lañ tey ji ñun laa mooy suñu métier quoi man Alliance Baldé laa jóge tey jii nekkoon naa si ay mbër yoo xam koo jox sa sama avance rek xam la ñu su bëri dañuy roox te ñu ay xale làmba suñu deret te dañoo am staff ñun ñaaxuñu staff dañoo am staff tey ji làmb nekkatul ay ay ay tolluwaay quoi maanaam kii combat yi la wala combat dañoo war a bëri maanaam la ñu war a boole noonu loolu nekkatul làmb ndax da gis sax biir bu nekk ki raw nit ki di bëree moom te raw ma ko sax ndax man bu ma duggee si làmb yàggul mais coow moo ma topp si làmb xam la moo tax tur bi ku dégg Mbaye Xaragne da ngay jàpp ne mbër bu mag la wala dara non non tey staff bi ñoo dem ba waxtaan seen biir xam la war na war ñoo mën a jël combat bi jël combat bi man maa ngi seen ginnaaw rek bi ma jëloon loolu keneen ku dul ko wax damay bëre moom mais mais nekkul pour cadre ay deux combats la wala yooyu non non. sekk ndaan bu baax. sekk ndaan waaw xam naa ko ndax mos nañoo daje ma ak moom dajee nañ dajeete. ngeen waaw tëgal nañ ñu seen koñ yoof moo nekkoon drapeau amuro bi. combat bi nga naan bi naan bi nga sekk naan dafa daw. combat boobu la waaw. naa sekk naan daw yow yaa daw yaa ñëw foofu noonu ruux. man. loolu laa di gàddu parce que moom jëli naa ko mu ne yaa ngi wër sax di wax naan combat bi da ngaa ñëw foofu moom mu daw te moom après di gànnaaw si wax ñu ne yaa ñëw foofu mafia bi bëri après yow nga ruux. non man maa ñëw signature bi ànd ak waa jàmm gën yëpp signature bi kon làmb lañ ko defoon ay oto ndaw lañ yóbbu signature ba dem yoole signature bi yëngal ndax yëf bi jeunesse la quoi ñun jàmm gën leen dëkk saa bu ñuy génn dañuy représenté ñu dem xam nga la xëy na signature nañ ma ak moom ba joxe ndey kàddu mais après bañ demee semaine boobu noonu la yàq làmb ji moom moom après si la delloo avance xaw ma lu ko dal daa feebar léegi après si lañ ma jox koo xam ne dégg naa ñaar sax bëri nañ ba koo ko daan ba pat yaa bilaay après si lañ ma jox kooku noonu ma bëreeg moom daan ko wiiri wiiri jaari ndaari léegi dawoon na mbapat léegi yàlla def na boole nañ la ñaar léegi sa diggante ak moom combat bi ndax combat bi da ngay da ciy xeex ak moom wane na gars yi ba tey yaa ngi mën a xeex wala da ngay ñëw bëreeg moom wan na gars yi ba tey da ngaa mën a bëri non amul da ngay wan gars yi da ngaa mën a xeex wala da ngay wan gars yi da ngaa mën a bëri non non fii instant yi nii ñun lépp dañoo pare dama lay wax benn wax pour na déggoo gumba mën da jiita mbooloo ndax ay bëtam neexul gaynde bu xiifee dëgg du dégg jat ndax lu mu yootu da jot mbay xanaa li nga wax ni foo nga waxaat ko parce du man ak yow te man ni nga waxee dafa jël wax ji féet la ma ko sekk ndaanaan moom ngay wax léegi wax la sekk ndaanaan sa waaw moom laa waxoon moom sekk ndaanaan gumba mën ta jiitam mbooloo ndax ay bëtam neexul gaynde bu xiifee du dégg jat lu leer laa la wax li ma moom dama koy jël far foos wër na Serigne Touba lamb ji neexul sax ay maanaam dañuy nekk fii di détaillé wax non non bi jëf la te yàlla xam na ne man sama bët teguma ko si ñi may bëreel du ma ak boo ma xoolee xool leen xam ne du ma ak ñoom li may topp ak liy nekk sama ginnaaw ak li may doxalee du ma ak ñooñu maa ngi ñu si ginnaaw la. barki sëriñ nag fi ne nag moom yaa ngi si ginnaaw combat bi wax non kuy ma mbay fi ne nii sa diggante ak Seck la est-ce que yow ñi ma ngaa jàkkaarloo Seck Ndaanal xeex ak moom sa course bi dinañu waxtaan ak moom après si kanam ak sa gars yi tuuti la mooy ba xam mën na xeex moom man de moom est-ce que ñi ma ngaa jàkkaarloo moom di ma xool xool ko ne ma xam ñeme naa jaaxal moom xeex ak moom kooku mooy kan. wala man man benn man bu man demee ba nara a tàppe di xeex sama morom góor si làmb ji wóor na Serigne Bamba ñi may ànd dañ ñu fii lañ dëkk si ndox mu taami boo geesoo léegi gis ndox mu taami ñu ragaluñ fi ñu dëkk. si barax lañu dëkk barki Serigne Touba Mbacke si la ñuy yeewu si lañuy fanaan gëmuñu dara képp ku taxaw sunu kanam ñoo la mën ñoo la ëpp doole wóor na Serigne Bamba. boo jëlee na ko Mbaye mu ne ma Mbaye Xadaa du xeex. du bëre. du xeex du bëre waaw xëy na avance mbay xadaa lekk moo neex ndax boo ko lekkee télé day ñëw seet si la moom mu ngi doog am ay interview ba mu lekkee sama avance ba léegi ba mu lekkee sama avance la commencé am ay interview kon lekk avance mbay xadaa moo neex après télé dañ lay tiim na wax lu la neex mais boo jaaxaloo mbay xadaa man boo ma xoolee rek doo ma sax yeb ba may fontoo saxam tumaa ñu tëj ñu si biir baleer barki Serigne Bamba gëm-gëm chaque jour moom ma ñàkkloo gëm-gëm boo sama deux defet yëpp moo ma ñàkkloo ndax bu ay nit toppee sa ginnaaw ngay rey sa bopp kon da ngay jàpp ne képp koo taxawal yaa ko mën mais nag affaire calcul quoi ñu dañoo arrêté pour mën a ñëwaat sauté bu baax te bu soobee yàlla ñu moom dañ koy jël ndax gars yi dañ ñoo yónnee yaaxamte ñu wóor na Serigne tu ay jàmbaar laay nekkal ay jàmbaar laay àndal wóor na Serigne Bamba te man jàmbaar laa vainqueur yaay du maag sax ñi noonu seen émission seeti mbër ñu dalal ki xam se nii moom moo di Mbaye Khada euh, ñu fekk fii ci salle bi nga xam ne fi lay entraîné dégg ngeen li mu wax fi jaar ci mbapat def 5 combats arène 3 victoires ak 2 défaites euh, bokk na ci làmb pare ndax làmb léegi la may wax chaque jour dafa am dafa am foo xam ne boo fa xasee ba si kenn mënut laa bañ ci làmb waaye Seck Ndanane moom gis ngeen combat yi def euh, ma leen di wax ne abonné leen ngeen ba seen touche notification mu mel ni que Seck Ndanane bi ma ko seetee ma ne ko sa diggante ak Mbaye Khada te ki ngay ki ngay dajal maanaam xale la boo xam si nii maanaam bu jógee jàmm nga ñëpp a jóg mu ne jour boobu mobilisation moom yow maanaam bu ñëwee stade bi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj xaaj bu gën a ndaw sax yow mënoo ko feesal moom mooy remplir stade waaw loolu moom du ma si débat ñu si ginnaaw laay ba ñu dépassé man nekkuma ci ay cadre ay supporter ak yooyu noonu man maa ngi ñooñ ñooy nekk pour supporter rek man bu ma amul supporter yaakaar naa làmb ji samay morom kenn ëpp ma si coow yaay surtout gi ma nekk tey jii joxe naa leen cër boo xam ne bu ma wootee far foos dañuy ñëw eh, ndax maa ñoom la avant làmb kon moo wootee ñëpp a ñëw affaire supporter du ma si baajo dañuy bàyyi ba bis ba. ki ngay bëreel est xam nga ne kooku tarki ndaa la munuma déedéet taatu ndaa waaw yooyu yëpp moom la concerné affaire yooyu noonu yëpp muy débat man daal maay mbay xadaa dëkk fii ma dëkk si gox bi. yaa eh, man góob yooyu noonu sax. mbay xadaa munuma mbay xadaa day xaar. waaw moom mën na toog di wax na day xaar mais mbay xanaa neexul kuy xaar boo ko xoolee rek xam ne neexul kuy xaar pilaaxi lan ngay lan ngay yóbbante ki nga xam si moom mooy Seck Ndaanaan boo ko defee ma jël sa gaay ñu ñu réagi waaw Seck Ndaanaan leen laa koy wax ndax mu entraîné rek di nga ñaanal jàmm di nga wax ni nag xëy na bii mooy ñaari yoon te dama koy ñaan gi yàlla wóor suuri bi mu ñett bu ñette dinaa ko fekk fu mu ko war a fekk te bis bu ma ko fekkee foofu wër na Sëriñ Bamba lu ma am yëpp dinaa ko jël si moom loolu ko laa koy xamal. léegi da ngaa ragal ne balaa combat mën naa delloo avance. bii mooy ñaar yoon laax dama koy ñaan bu mu ñett. wër na Serigne Bamba. yaay dañuy daj ay coono yu métti maa ngi koy dégg mu ne man dama jàpp moom benn yambar la yooyu man non non gëw ma yooyu noonu man bëgguma bëre yambar. wër na Serigne Touba lu métti laa bëgg. lu métti lu tar. kon man xooluma boo bëggee bëre yambari nii rek yaa ñoom ba fan man samay moromu ci làmb ji maag ñooñ la. mais si keneen de. combat fi la mën a yóbbu boo si jógee ak victoire. waaw combat bi ñun xam nañ fu mu mën fépp bépp combat bu ñuy jël la ñun xam nañ fépp fu ñu mën a yóbbu ak la ñu mën a xañ. kon ñun chaque jour dañuy liggéey si loolu noonu moo tax chaque jour rek dañuy def fulla fayda. parce que for naa ci wu ba ñu ne avant ñu lay jox Seck Ndanane da nga njëkk wax ne nañ la jox caatu ngéwél mu ne balaa ngay jël caatu ngéwél da nga jaar si moom. waaw maa caat ngéwél amul yooyu maa caat ngéwél dañoo doxoon suñu combat mais xaas ma ko yàq xaalis moo ko yàq mais maam doxoon nañ suñu combat waaw. kon léegi comme comme xaas boobu yàq na ko léegi naa jël sekk ndaana suma ma su ma paree si moom bu ëllëgee caatu ngéwél dootu mën a bañ. bu ma paree si moom rek leneen la ñuy waxaat kon dañuy bàyyi loolu ba génn si lii te bu soobee Serigne Touba dañ ciy génn bilaahi balaa ma lay bàyyi di jël euh, sa gaay euh, nga analyser ñu rek ci combat yi taxaw léegi damaa bëgg nga tànn ci parce que combat yi taxaw dafa bëri te bu ñu bëggee analyser yëpp xam naa fi la ñuy fi la ñuy temps bi fekk mais yow damaa bëgg nga tànn entre Balla Gaye 2 Gris Bordeaux wala Boy Niang Tapha Tine euh, wala Sa Thiès Garga wala na ko réel ak ki nga xam si moom moo di Marle 2 wala wala Mama Lamine ak ki nga xam si nii na ko réel ak Marle 2 ak Mama Lamine ak ki nga xam si moom moo di moom mooy Garga tey boo ñu doon analyser ñan combat nga ci maanaam ñaari combat laa bëgg nga génne ko ci rek pare pour ñu ànd see waxtaan ko yow. waaw ñaari combat daal lay génne. man gëm-gëm bi doxe damay jël Siteu ak Papa Sow jël Garga 2 ak Mama Lamine. ñaari naroo analyser naroo analyser làmb parce que fii noonu waxu supporter rek nga fa nar a wax waxu far rek. non non pas ay waxu supporter ay par waxu far ñun fi leen dëkk jàmm gën ragaluñ lu ñuy def billaahi gëmuñu keneen ku dul ñooñu ñun jàmm am moo ñu ko gënal. Siteu Papa Sow. waaw ñun lenn la ñuy wax si combat boobu noonu tey xëy na ndam yàllaa ko yor mais dañ koy ñaanal bu ñuy ñaan dañ koy ñaanal Siteu amul leen lu ñuy àndal dañuy ñaan yàlla na ko sunu borom may ndam si kaw Papa Sow yaay si xol bi sedd guy xanaa la suñu ay lii de Papa Sow yàlla nañ ko duma daan ko si kàttanu borom bi. xam nga Papa Sow bokk na ci mbëri dàq xeex ci làmb ji. waaw xam nga si dara ndax contre gis nga gis nga. Papa Sow moom njàmbaaram kenn mënu kaa werante yee képp ku koy naxante rek naan Papa Sow ñàmbaar wala ñàmbaar kon amoo xel ñun ñun ñàmbaaram dañoo bëgg bu jour baa mu réer ko billaahi ñu jàpp ko duma ko daan ko. est que jàpp nga ne combat boobu Siteu Papa Sow mën nañ cee séntu xeex. waaw lépp mën na ndax làmb la làmb moom da ngay pare bépp doo pare si boor bi bàyyi si si bépp boor ngay pare waaw. te moom. ñoom ñaar bu ñu xeexee si kaw sans yu jàppante ku am avantage. Siteu moo ëpp avantage ndax njool la. moo ëpp avantage si kaw Papa Sow Papa Sow ndaama la. Papa ndaamee njool ndaamee yëpp si kaw lay xeex ñoom. mais nay diree Papa Sow day laaw Siteu nay dur deret. pilaar bu ñu jàppante. waaw Siteu daan ko. ñoom ñaar kan xaw ma kuy favori mais yàlla na Siteu am ndam. mi ngi noonu mbay xanaa dégg parce que boo gisee bëgg mën nga tànn yooyu noonu parce que fi ne nii waxu kii rek nga fi wax waxu waxu kii laa faral ak kii affaire yooyu noonu léegi Mama Lamine Garga 2 Mama avant tout kooku noonu dama siy sawar di wax quoi Mama Lamine parce que dégg naa yéen ñaar mi ngi fii toog nekk si boppam man maa ngi nii toog ne sama bopp mais jàmm laa ka ñaanal kooku noonu champion la kooku xëy na maa moom du affaire làmb yaay kooku sama deret la instant yii nii billaahi kooku jàmm rek si moom billaahi ku ko nar a xañ ma xañ la ko. yéen a ngi am combat amateur yëpp nee nañ Mama Lamine mi ngi doog a am adversaire dëgg dëgg dëgg adversaire de taille potentiel. waaw nit ki moom tey jii làmb moom képp koo lekk avancé am rek pour man combat la quoi ndax kooku warut a tëdd di nelaw yow waroo tëdd di nelaw ku nekk day job quoi pour lu lay may ndam mais yàlla baax na Mama Lamine yàlla na am ndam si kaw Garga yomb wóor na Serigne Bamba moom lañ koy ñaanal. adversaire yi gar dëgg bëre. waaw loolu noonu moom la concerné làmb neexul ay affaire de adversaire yi ñoo bëree yooyu noonu non lamb gëm-gëm la boo gëmee da ngay daan Balla Gaye barki Serigne Touba da nga koy daan ku dul moom sax boo ko gëmee da nga koy daan kon làmb neexatul ay affaire de lii affaire de ay maa fi ak lii defuma fi lii non non gëm-gëm la ak doole ju wóor waaw boo ko amee ñàkkoo dara koo jàpp da koy daan. mujjee yóbbante sekk ndaanaan mu seraan la xool la waaw moom jàmm rek laa ko ñaanal ndax bëgguma di wax si moom quoi bu ma naree wax si moom lu bëri rek jàpp naa ne mooy loolu man jëf laa bëgg si moom kon maanaam neexutulaay wax jëf rek laa bëgg si moom. wax làmb rawatina mbër mu ndaw wax ñu koy jàppale te ñi leen di jàppale ci lu mel nii lañ am occasion pour ngeen sant leen gërëm leen léegi ñu bàyyi leen sant gërëm bëgguma nag pare nga naan ma ay fàtt naa sama gànnaaw beeg sama booy bi santal gërëm ba ba lu la neex temps bu neex. waaw sant man mafia bi may neexe dama leen di sant bu baax njàmbaate lay wax wóor na alxuraan mafia tous dara du xew maa ngi sant Cessaaw 2 bi bu baax a baax xam nga di sant guy ga waa guy ga taw kat séeréer rek ñëpp di sant waa mbedd mu mag waa Sicap waa 80 84 point bi waa ënn forox waa yoonu ndaw du gaaw si amee dégg sant waa marché bu ndaw sëfër kalandooy sam-sam yëmbal fépp maa leen di bëgg bu baax di sant sama grand ku si mel ni ay ñoom kay ay gàcc ay bopp njaay xam la ay falu ay vito fii ay ñoom samba ñoom ñëpp ay laxaat ay mbës ay ibrahima xalilulaay xam la di sant benn gaan boo xam ne tey jii kooku noonu da xëy na damay dem ba damay rusu moom bamba camion eh, dama bëgg na génn ma li may kooku noonu day sonn si man wóor na Serigne Touba saa bu ma jaaxlee muy guddi muy bëccëg bu ma ko wooyee li ma bëgg dama koy defal ndax mbër ñun ay mbëri ndaw lañ tey jii xëy na dañuy soxla lu bëri kon képp ku ñuy jàppale si côté boobu rek ñun waruñoo mën a am sa fay lu loolu di la ñaanal waaye dama koy ñaanal bu baax liggéey bi gën a yokk ay ñoom Pawa Diallo maa ngi ñaanal Pawa jaalo sama benn boobu naan jaas daa damoon si tànk maa nga koy ñaanal mu am tan bu baax a baax di san sama waa staff bu baax yaay ku si mel ne ay ñoom Mignane ay Cheikh Sall ñoom ñoon awma seen fay surtout Mignane ñooñu aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax ñoom Pam Niass ñoom Jéeri surtout Jéeri xam nga la ñoom ñëpp maa ngi leen di béy bu baax di sant sama yaay di sant sama waa koñ di sant sama si kër jigéen ñi ñoom say ñoom Deebo ñoom ñëpp ay xadilum xam nga la ay kudikan ñoom ñëpp ay asu mbaw ñoom ñëpp maa ngi leen di bégg di bégg caamu gën si kaa mbaa beeg ñëpp di ñaan caamu yàgg fi quoi ñi fi am combat tamit suñu borom may leen dam di sant sama mbokku mbër bee ne kii après bëgg naa la jëlal ma ko caatu jolof kii moom sama waay la pilaar yi maa moom du làmb sama waay la bu baax maa ngi koy ñaanal sunu borom may ko combat moom may ndami ndam pilaar maa ngi sant mafia bi ñëpp bu ma limee damay juum ku ci déggal sa bopp ku ci déggal sa bopp maa ngi bëggee ñëpp sama yaay yi ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee Fat Kayta sama yaay Fay Kayta maa ngi koy bëggee bu baax a baax di sant Assane Assane borom Gambia ak Baara borom Gambi <laughs> maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax yaay di sant maam Malamine bu baax ku sama papa la guddal na ma bëccëgal na ma yaay bëggul may manqué dara ci àdduna kooku maa ngi koy sant bu baax a baax a baax pilaar yi papa dund dundal cent ans cent onze yi jàmm si yow yaay seen émission seeti mbër ñu dalaloon ki nga xam si moom moo di Mbaye Khada nekk champion bokk ci làmb jëm ci combat bu am solo muy digganteem ak ki nga moom mooy Seck Ndanane neena naa leen làmb boobu làmb amateur la ku yeex doo am place kon bàyyi leen xel loolu ndax bu joof jógee ah, fukki pénc ak ñaar jóg mbay xadaa jóg jàmmagën jóg Seck Amba jóg comme ni nga koy waxee kenn du des kon làmb la joo xam ne ku yeex doo am place mbokk yi bàyyi leen xel loolu mbay xadaa noo gisee SBT ci liggéey bu am solo bi nga xam ne waaw SBT seen liggéey di ñaan affaire yi yokku saawan baawan ba ku nekk mën see gis sa bopp kon ni nga fi ñëwee seet mbay xadaa na dem sent ay yeneen champion yoo xam ne tamit ñu ngi biir jàmm gën ndax ñun lépp lu ñu am moo ñu ko gënal. yaa di ñaan mu ne ay tele télé wóor na Serigne Touba ndax yow Baye Fall nga te da nga war am lu baax te Baye Fall moom lu baax rek ay njëgam bi laax yi loolu kese la ñuy ñaan si télé bi yokkute waaw. kon teg leen seen baaram foofu ak beneen champion ak beneen ndaanaan ci SBT seen émission set mbër ki ñu dalaloon gis ngeen ko combat la xam si ni ay combat yu neex la combat yu am solo am solo la bàyyi leen xel loolu incha allahu taala bu ko defee euh, ak beneen champion ak beneen ndaanaan ci SBT jërë